minutes bii bu ñu ci jógee rek dugg ci grand combat bi ndeysaan Mbaye Gouy Gui mi ngi leemu ndeysaan arbitre bi laaj na ko ndax pare na ku tib ba dal na mi ngi lewtoo diggante Mbaye Gouy ak Marley Marley à droite Mbaye Gouy Gui à gauche bu ñu ci noppee rek dugg ci grand combat bi diggante Tapha Tine ak Eumeu Sène drapeau laaj Diop ministre des sports ñoom ñaar ñi ngi lewtoo Mbaye Gouy dox na fekki Mbaye Gouy Gui jiital tànku ndeyjoor. Mar la jiital tànku ndeyjoor. dox fekki ko. drone bi ñëw tiim leen arbitre bi sukk di leen. arbitre ah oui Malick maa ko mën jarul nga koy wax man la ñuy seetaan jarul nga koy wax. ñu ngi law toog. yee eh, door na ko. mi ngi door Mbaye Gouy Gui jooloon ak moom. Mar ngi door. Mbaye Gouy Gui jàpp na sol. Mbaye Gouy Gui Mbaye Gouy na ko. Mbaye Gouy Gui jàpp na sol Mbaye Gouy Gui dugg na ko. Mbaye Gouy Gui yegg na si bopp fu sori egg na ko fu sori egg na ko fu sori egg na caxabal na ko caxabal na ko bañ na bañ na day jéggi laa ilaaha illallaah Mbaye Gouy Gui jël na tànk bi na sukk na na ko xaaj na ko ma ngay dajale oh war na ko na ko ndomba war na ko ndomba yanu na ko daanu daanu daanu daanu daanuwul déedéet jël na ko yenu na ko yenu dooraat ci suuf daanuwul daanuwul daanuwul ba léegi jël naa bëggul ndax mbay guy bi du ko bàyyi wër ko ndombo déedéet mi ngi koy xaaj yenuwaat na ko yenuwaat na ko yenuwaat na ko laa ilaha illallah na ci na ci lamin mbër mooy yenu bu seccee rëcc laa ilaha da koo yanu mu bàyyi koog poids. waaw dafa yëngu voilà da koo bàyyi boppam. boo feccee da ngay rëcc. laa ilaaha illallah. bañ la dañu xasante ñoom ñaar. laa ilaaha illallah Marley génn na ci. mbay guy gi li mu dépensé ci énergie. waaw pour jéem a daan mbay guy. waaw ak foog nga eggoon moom mbay guy gi te daanul Marley. waaw attention pour la suite. attention au retour. attention. Marley day jàpp dël rek récupérer parce que temps fort daa am ci football mais temps fort am na ci lamb dëgg la Malick temps guy gi mbay guy gi dem na ba egg Marley fu nga mi koy dóor waroon naa jeex mi koy dóor léegi Marley fitti la na Marley gi gi dóor Marley gi dóor mbay guy gi mbay guy gi da koy déggeej koy remplacer baaxul baaxul da koy yanuwaat baaxul da koy yanuwaat baaxul de bii yoon c'est le bon bii yoon c'est le bon non non non. bi yoon c'est le bon. génneel bopp bi rek bi yoon c'est le bon. bopp bi rek génne bopp ngay rëcc. bi yoon c'est le bon. bopp bi rek bi yoon c'est le bon. ca xamoon yan waat na ko. tàmbali ah oui. mbay guy gi daan na marle. mbay guy gi daan na marle. la force de Mbaye Gouy Gui. enfin la, la détermination de Mbaye Gouy Gui la puissance de Mbaye Gouy Gui. par le temps bu ne oh daan na ko. Mbaye Gouy Gui Gouy Gui la. ah oui daan na ko. Gouy Gui la bawol bawol yaa ngay jubilé. Eh, daan na ak coono daan na ak coono mi noonu tëgg ci digg bul jox ndox bul jox ndox. il a beaucoup dépensé. ña ngay tekki mankaane. victoire de Payguy sur Marley. Marley n'a pas démérité. La désolation de Marley. Marley n'a pas démérité. Ah waaye fi mu bàyyi Payguy ko fa. moo sori dafa sori dafa sori. non doo ko bàyyiwaat waaye gërëmal. jaatu koy gërëm. avant tout damay damay encouragé. mbëri Guèye waaye yu fi bëre tey ñàkk yëpp. di may sant Balla Gaye numéro 2 bu baax a baax a baax sama papa sama lépp di sant Pape Mama Fall di sant Eva Diarra depuis France di sant Ndiaga Balla Gaye ama fayam Thierno Kane depuis États-Unis maa ngi koy sant Pa Ousmane Diop yal na la tudd fanaan la tudd Pa de Cissé maa ngi koy sant Codé Ndiaye maa ngi koy sant bu baax a baax Cheikh Ndiaye Espagne di sant Andaw di sant Moussa Moussa bu Sathiès waa ASC Mango maa leen di sant di sant Mass Dieye ñu ci combat bi Malick ñu ñëwaat ci combat dafa def flexion daw jàpp ca la ca gannaaw ko ndombo marle bañ mu wër ko ndombo padd marle bañ mu langa mbiitu yëkkati marle bañ mu jàppaat yëkkati marle bañ mu jàppaat encore bi yoon nag mu moomu jël ko arraché ko door ci ah na ko jël bu jël bu di ko wax heureux ménage maa ngi koy sant bu baax a baax di sant sama grand